Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de Weddy Like, merci de Weddy Abonné, merci également du bail, c'est commentaire. commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager avec vous Gaël information yi mbokk Sénégal yi fait fu les maintenir nekk 14 régions du Sénégal de woon ngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital hôpital yi sécurité du feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam ne erreur judiciaire ak ji ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si Gaël te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu Actuel penalty bi gars dañuy waxtane ki xam ne Pape Ousmane Sakho encore buteur wax ci également ci Boulaye Dia euh, buteur également double passeur décisif wax ci aussi ki nga xam ne mooy Aliou Badji mi nga xam club bi bari ñu ngi top ci ginnaaw ak Paul Pogba bi ñuy wax ne dañ ko sëriñtu <laughs> loolu dal gars yi la ñuy fas yéene waxtaanee wala boog moom dafa santaane ñu sëriñtu benn joueur li nga xam ne moom la d'abord moy li nga xam moy basketball donc phase éliminatoire hein, retour yi coupe du monde Sénégal nak 3 troisième hein, victoire 3 sur 3 ñoo dóor Cameroun 90 à 71 les joueurs donc de ki nga xam ne mooy donc Desagana Diop ak ñoom góor gi si Dieng def nañ différence bi ki nga xam ne également mooy Mathias Pogba moom Paul Pogba ñoo nekk nii ah donc Paul Pogba nag nee na frère am ak ay yenn xaritam dañ ko daal di woon jël pistolet tiimale ko di ko laaj 13 millions nee nañ pour service rendu parce que avant moo nekk joueur ñoom ñoo ko doon toppatoo yéen ñoom nag dañu accusé ne Paul Pogba dafa wutoon sëriñ pour daal di sëriñtu ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé ñoom daal loolu lañ daal di wax premier accro donc diggante Lyon ak Reims Reims ak Lyon nag donc un but partout ñuy wax ne également ki nga xam ne mooy donc Dion Lopy dañ ko jox carton rouge ci match boobu noonu ndax ñoom ñoo mënoon un but à zéro mais rouge boobu tax na nag ñu nekkoon infériorité numérique kii di Tino Kadewere donc moom nag il va se relancer du côté de la Liga ba nga naan ba nga xamee ne du côté de l' Olympique de Lyonnais amatul temps de jeu bu bëri et que dañoo jënd yeneen joueur moom nag fi ne nii donc du côté de Mallorca daal la wax ne lay dem jouer ji promenade de santé pour Marseille Marseille bu Igor Tudor ñoom daal fi ne ñi nga enchaîné victoire yi hein. ñoom ñoo dóor euh, Nice 3 buts à 0 ki nga xam ne nag mooy donc Alexis Sanchez moo dugal doublé entre autres donc nekk match bu match exceptionnel kii di Dimitri Payet titulaire wane Thibaut également, c'est le cadre de cette équipe, c'est l'un des génies de cette équipe. Qui Klaus également, Jonathan et également qui a donc Nuno Tavares Nous ñaar aussi fi mu ñoo début de saison bi les deux meilleurs joueurs ay Nuno Tavares 3 buts de goal Klaus déjà il a fait 3 passes décisives au début de ce championnat qui a également Fabien Ruiz qui est actuellement donc nee nañ le euh, ak luck daal la de Paris Saint-Germain de physique médicale contre contrat am 25 millions d'euros de ci Paris Saint-Germain pour Dali di jënd ki nga aujourd'hui mooy point le joueur de Napoli ki nga également moi Belotti Belotti dem na du côté de l'AS euh, Rome donc librement donc jógee na club d'aller di dem signer fi nga donc ci AS Rome José Mourinho bi nga de ne dafa pour joueur bi ñëw na fa moom il a parvenu il est parvenu plutôt amener na benn accord ak quoi ni di euh, plutôt euh, AS Rome pour daal di fay dem Anthony gars yi nee fait Anthony donc gars yi si semaine bi lay daan fas yéene dem du côté de Manchester United pour signer contrat donc 100 millions d'euros l'année voir wax mu nekk bien cher qui mercato bi ñu nekk en tout cas Anthony donc le joueur brésilien 800 buts sous Jurgen Klopp donc il ngi Sadio Mané fii ci nataal bi Sadio Mané boxing si ñi nga xam ne tax nañ euh, di euh, euh, plutôt Liverpool ak notamment di Jurgen Klopp daal di am 800 buts nous koy daal di fêter donc tous les buteurs ngeen gisee ñenn ñi ah si ñu ngi noonu du côté de Nottingham Forest nous dañu leen a dóor tey mooy ñoom Kouyaté Tottenham bu Pape Matar Sarr mi nga xam mi ngi ci groupe bi tey ñoom ñoo leen 2 buts à 0 grâce à un doublé de Harry Kane e minute ak 81e minute le anglais bi daal di Nyari Buyu décisif par rapport à saint jean tobo donc classement bi moo nekk ngeen gis ko Arsenal Manchester City ak Tottenham ñu nek ci kaw Arsenal 12 City ak Tottenham 10 points Brighton FC 10 points euh, di euh, donc euh, Liverpool ñom fi mu ngi ci place Manchester United ñoo 8 e place Eintracht Francfort donc en tout cas ñom am nañ seen première victoire 4 buts à 2 lañ 4 buts à 3 plutôt lañ vers Werder de Brême notamment avec un but signé Mario Götze l'homme du mondial qui nga xam nak remplaçant duggal bi bi Allemagne coupe du monde bi mais aujourd'hui également ci benen deuk ci Espagne ki nga xam mo mu ngeen gis ni di Antidote Flick ans Flick demoon na match FC Barcelone ak Valladolid ñu doon ko joué ni jii nii Valladolid ak ñii di FC Barcelone donc match bo xam aussi gars yi ah, di ngeen gis un peu ki nga xam moy donc Juan Laporta xawma ma lan moo dal ci beut beut bi xawma dafa mbëkk kenn wala xawma lan la mais en tout cas gis ngeen ko ak beutam bi ni mais il est aussi avec une légende du football le meilleur buteur le meilleur plutôt attaquant du monde pour le sama c'est gis qui dit di Ronaldo el Meno donc classement bi nga xam ne tey gars nañ ko mu ngi nii ah, donc ngeen gis ko di euh, donc Balde euh, euh, Balde hein, Baldé le jeune Baldé pépite Baldé bi actuellement finalement mu ne moo yóbbu di Jordi Alba bon joueur la boo xam également il est excellent c'est un excellent joueur ngeen gis aussi Robert Lewandowski bi nga xam ne dañ si dellu si kanam parce que ñoom ñoo d'or et Lewandowski a encore fait parler de lui Pape Ousmane Sakho l'attaquant sénégalais de Simba FC tey dugalaat na dugalaat na ci caax yi def début de saison aussi aussi bu tonitruante moom nga actuellement Jotna, na Aliou Cissé jox ko du côté donc de l'équipe nationale du Sénégal il a marqué un joli but sax tey jii nii ki également Aliou Badji mon Gana bi nga xam ne dafa waroon dem Auxerre euh, mujjut a antu gars yi mujj a jënd Mbaye club yi Nantes Saint-Etienne ak yeneen club fi mu ñu ngi donc beaucoup ko daal notamment on parle du FC Zurich kii di euh, donc qui euh, di Boulaye plutôt Boulaye il a marqué aujourd'hui dafa le premier but contre Salernitana avec Salernitana plutôt Moi premier match comme titulaire Moudou Gol a délivré délivrer donc aussi deux passes décisives le Boulaye Dia def muy né actuellement aussi commence na lancé saison et il veut tout faire pour bok ci nga coupe du monde on espère que dina enchaîner à buts parce qu'on en a besoin et le Sénégal a besoin de ses attaquants autant donné qu'actuellement actuellement une une yu à mon temps de jeu et qu'on nous dit que c'est un attaquant de dugal lu Bari gars c'était les informations que je voulais vous donner hein. donc toujours un plaisir de vous servir durant les donc qui dit Boulaye Dia aussi ci hein, du match je yi nga xam vous ngeen ko gars sans oublier on avance ensemble